abonné foofu si seen YouTube Diaw américain borom américain business ma ñëw si console la classe Seex Caam gi ay Moussa Camara mooy ñooy genre yooyu nga xamante ne donc dañuy dem États-Unis dañuy ñëw États-Unis commencé lamp yi commencé leen dugg ñu commencé fréquenter tubaab yi rek seen bopp yi commencé tourner parce que man mënuma comprendre nga bàyyi dëkk boo xamante ne sa bàyyi fa la juddoo sa yaay fa la juddoo yaroo fa ba maîtriser réalité ya fa am nga bàyyi ko fa ñëw États-Unis soo ñëwee commencé di xas waa dëkk ba naan amuñu mentalité amuñu bopp bu baax duñu xalaat affaire yooyu noonu da ngeen war a yeewu pour que comme si ko yow yaa leen gën a yeewu te or que demewul noonu sénégalais yi seen xel lañ àndal ànd ak seen xalaat di doxee seen xel kon lu ñuy def ak lu ñuy bàyyi du yow benn doomu xaraam boo xamante ne tekkiwoo sarab ndayam yaa leen koy wax sénégalais yi def seen xel lañ ci àndal mais boo mënee taxaw naan daayira yi day tardeel Sénégal ak tarixa bu munti bokk daayira yi day tardeel réew mi parce que da gis ñoom duñ am dërëm duñ yor dara luñ yor yóbbu ko ci daayira da ngay duul loolu ku ko wax da ngay duul wax leen leneen boo leen gëmut ay sëriñ wala gëmu leen tarixa am na ñu gëm sëriñ am ñu gëm tarixa ngeen bàyyi leen ci li ñu gëm ñoom ñu continuer nekk ci li ñu gëm ñoom loolu mooy wax mais concernant Moussa Camara ñoom dañuy toog di inventé di duul teg seen yëf naan ay question yi ñu fi teg nag bii lii lii kii may wax mu naan ay noo à la maraboutique affaire yooyu noonu arrêté leen seen duul yi bu leen fréquenté tubaab yi deux jours rek commencé yaakaar ne yéen tubaab ngeen doo leen ay tubaab ay sénégalais ngeen ay africain ngeen en plus seen dëkk réalité bi ak réalité bi am États-Unis fii bokkul loolu il faut ngeen def ko seen bopp yi. sénégalais yi nek états-unis di fi ñafé di bu def seeni di dajé di jang di def seeni kurel ñoo ñu yalla ak yonent bi ñoo leen ñor nan sangara mo leen ñor continuer leen ci lolu te ngeen bayyi ni ñu def li ñu def gis nga nit ki mëno chaque jour nga di ko influencer nan ko gëmal li gëmal li gëmal li bayyi leen nit ñi ci seen gëm gëm lolu moy wax ci bayyi leen nit ñi ci seen gëm-gëm ndax yéen a comprendre yéen mënu leen a wax sénégalais yi lu ñuy def parce que tekkiwu leen sarab ndaayam te nag ñun ñun ñu ñoo ngeeg yéen soo leen di def seen i direct di fontoo nit ñi ñun itam dinañ def seen suñuy direct di wax ak yéen parce que moomu leen ñu Moussa Camara ñun amuñu sa bu buñ lay tontu amuñu luñ lay tontu parce que yow waxewoo si xam-xam. nit kuy waxee ci xam-xam nag lañ mën a tontu tontu ko ci xam-xam cadré ko wane ko ne ko li nga fiy jaay ñun ñoo la ko amoo ndey xam-xam amoo benn critère bu tax ñu war la tontu yow doomu raam nga kon arrêté leen seen dof doflu gi te ngeen bàyyi sénégalais yi liñ gëm parce que boo xoolee Sénégal majeure partie bi yëpp dañu am ay sëriñ bokk ci benn tarixa te gis nga tarixa bi lislaam bi ngeen di wax tarixa yi ngeen gis Sénégal yëpp ñoo ko yeesal ñoo tax gaay yi dellu xam yàlla xam yonent bi topp ko nag di ko jaamu dégg naa sax càmm naa nay nañ bàyyi di wax suñu mag ñi ñoo tax yàlla di wàcce yërmande loolu yow yow mi koy wax sax yow koo nga parce que kon weesuwul Sénégal jàmm ju fi am Sénégal mosoo fi dégg coup d'état mosoo fi dégg yenn attentat yu metti yi pourtant terroriste jaar na fi ay maintes fois mais mosoo dégg benn problème senegal te boo waxee ñu ne la mag ñi dañ ko fi ñaan te gis nga mag ñi ni ñu jaamoo yàlla ba yàlla gërëm leen yonent bi gërëm leen suñu ñaanee yàlla yàlla da koy nangu te ñaan nañ ko fi boo gëmul ne ñaanu mag ñi des na fi ba léegi am na ñu ko gëm di ci dox gis nga suñ mag ñi. munu leen a muusa ko waane ba sénégalais yi duñ leen gëm jàpp leen arrêté leen seen ngër yi te ngeen bàyyil ñu suñ mag ñi man nag nee naa leen du ma leen wàcc ku ci laal benn mag ma daqaar sa ndey maa ngi seen kaw de lu leer laa leen di wax ku ci laal mag ma daqaar sa ndey amul kii amul kaa yéen ñëpp nag laa wax tarixa yi moom di ngeen leen bàyyi si nii wala ngeen bàyyi leen ci ne parce que am na ñu leen gëm am na ñu ci nekk am na ñu ko gëm topp ko di leen di di di di fa jàng yàlla ak yonent bi te loolu moo ñu ñor.